ñaanal maire xamuñu dara ñaanal maire mënuñu dara et cetera d' accord ñoom ñu mën dara mbaa ñoom ñi xam dara lañ ñëw wax ñu li ñu mën ak li ñu xam demal foofu la du leneen nekkatuñu jamono yi ay tonton Mahmoud ak ay kalo bleu ay soldat du feu yooyu xeebi dara wax naa ko les mouvements yi nga xamante ne les mêmes réponses di di il y a cinquante ans sont morts yooyu amatul

beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup loolu ñun ci wetu maire dañ koy liggéey jëm élection yi parce que élection yi dimension koy jox mooy dañ fi dul nekk di xaar ñu ne ñu le premier janvier la campagne bi di commencer le deux janvier campagne à l'américaine lañ koy def wala campagne à américain yi presque onze mois ngay nekk boo jógee première état bi dem première état bi et cetera mais yow deux semaines sax mënoo ko tenir campagne nag ay dina nga jiite askan fi mu toll nii non seulement équipe municipale bi li mu war a liggéey dina ko liggéey